ba dund daa jafe ko daa yit ko bët la daale ba lépp lam am yàlla mi sunu buur waa xiridol laha xardan yow tegal xasanan bàyyi saal de yoon wii la jaaroon démb tey ci la jaar tey nag yu daa xif ja yàlla sañte moo dige woon ku fab jox ko an faqtum ja nga ca biir bàyyi saal da daa joxe ay sàqam te sàqami sex ca booba yombul cere daa am juñuy si fenduur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 fukkam ci ay miliyaar lay tàmbulee soog a wax bu jëf baree wax dafay neewu sëñ bi nim dafa wóor ngañ dem ba sax ku dëkkoon ak moom mu jóg di defar seenub dëkk ñàkku ko jox dara sax dul wóor tey koy defar dëkk bii Tuubaa nekkaay nu defar len bokk tam war nu kuy tàngam lu yaamata dóor jullit bu bu sañoon Tuubaa ëllëg di këram murit bu ne bu sañoon Tuubaa mu def ko ni